damay nekk ci nguur defar samay ne immobilier la tabax samay kër ak samay nekk di ko luyewaat biir même nguur gu ma nekk affaire boobu tànk mu ngi am état bi à chaque fois day day dëkk di luye te buy luye tamit ñun contribuable ci suñ poche lay génne parce que ñu ñooy fay taxe ñooy fay budget ñooy fay nanga pour ñu mën koo fayee loolu naa ku mënti ñëw bu leen fàtte ñaari mbir moo am résime bi dafa changé ñu am nguur gu bees nguur gu bees na lu mu fekk foog mu xool marché fu muy teg tànkam lan la peut-être même amoon na rapport mais rapport moom santaane ko woon mais bu santaanee benn rapport boo xam ne ci patrimoine bâti en tant que su paree rapport bi dana xam à peu près kan kan moo yor yëfi nguur gi kan kan moo def ay pexe bañ jox alali nguur gi boo xam ne waru ko woon yelloowu ko waru ko woon jël boobaa tamit beneen conséquence bii ñëw képp koo xam ne nii tey jox nañ na loo xam ne nii nguur gaa ko moom jox la ko dañ état bi da ko war a jëlaat looloo xew Guinée Guinée ba Doumbouya toogee am na si ba gisee ne Seydou Dalia Dalia Diallo dañ ko jox kër dafa jëloon benn kër goo xam ne nguur gi moo ko moomoon te nu mu ko jëlee demeewul noonu da koo nangu da koo da koo nangu ce même chose fii si si si Sénégal képp koo xam ne nii jox ne loo xam ne nii nguur gaa ko moom nga xam ne da nga def say pexe yow parce que jege naa jege naa ngu jege naa président wala jege naa ministre nangam jege naa nangam def pay pexe ba jël nguur gi dañ ko war a jël jox ko parce que lu ñuy fay si location chaque année suñ service service yaag direction yaag ministère yaag cher na de telle sorte que te ñu am suñu ñun suñu yëfi bopp. après sax maa ngi doo comprendre lu tax building ba tey mënu ko ta pare après ak ñaata année ba ñu defar ba tey ñaata ministère la mën a jël te et puis ñu nekk fi di louer. pourquoi ñu lee te ñu am la benn patrimoine ba boo xam ne nii moo nekk fi boo xam ne nii kay bu ñu ko utiliser mënal la jural leen wàññil ñu yaxanal ñu suñ yaxanal ñu poosi nguur gi boo xam ne telle sorte képp koo xam ne nii yaa ngi fi mën nga see jëriñoo lii daal c'est à te du yem foofu du yem foofu am na yeneen yu mu waxaat ne dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko càmbaraat financier bu 2000 ba 2000 nanga mais foog ñu xool budget mill mill mille deux mille milliards trois mill milliards boo xam ne nii yow man gis ma sama budget bi sama bopp yow gisoo sa bopp kii gisoo sa bopp mairie yi employé ñu ngi gën di grève ne amuñ ko boo demee ci direction yi ñu ngi gën di grève te ñu ne am nañ budget tant de milliards fait xaalis boobu yëpp ñuy compter ne milliards de milliards milliards il faut que ñu xoolaat de de de de 2019 ba 2024 fu affaire yi fu nu mu demee bu ñu ko xoolee telle sorte que nu mu demee boobaa mën a xam moom fu muy teg tànkam man je me suis dit que ne état de grâce bo boom ñoom bu ñuy falu dañoo fekk budget bu taxaw ñu commencé exécuter budget bi boo xoolee ba ñu demee FMI sax dañ leen nen PSE bi lañ mën a PSE bi lañ nen ni ñoom defaraguñ seen budget bopp d'ici 2025 tu sauras da nga xam ne kat ñoom ñoo élaborer seen budget en fonction de leur priorité ñu xool nan lañ koy nan lañ koy dérouler ak ñan ak ñoo leen war a accompagner ci loolu pour l'instant ba 2025 moom gëm naa ne examiner la ñuy xool di xool fu ñu teg ci tànk boo xam du toll teel ko. nga pour ajouter ci ci ci loolu. xam nga am na ay méthodes yu ñu mën a utiliser pour am tuuti wecc ci patrimoine état am na yoo xamee ne yenn ministère mais dañoo teg sphère ministérielle jam ñaajo lu tere ministère yëpp ñu far a dem ñu dem fa yi euh, bâtiment yu ñu occupé woon fii mm-hmm. même bu dee seeni batiment la wala état moo ko moom ci patrimoine wu état la bokk mm-hmm. ñu génn ci yooyu les batiment mën nañ ko louer ah. transformer ko ci centre commercial wala da ngeen ak mm-hmm. yeneen building administratif mais dafa am ay services yu mu war a concentré yu mu war a jël man je je euh, c'est c'est même bizarre ñu ne la par exemple euh, ministère nangam benn ci demembre am ma nga cité kër góor gi demal cité kër góor gi ñaata ñaata ay demembre démembrement ministère ñoom ñoo fa nekk. bu bees bi sax mu fa. ministère la justice sax am na fa ah. am na fa kii tribunal. Mhm. bu commerce. Ah. ak yeneen ak yeneen. mais communication fa la ak ah. yeneen ak yeneen. ñu ñëw ñu ne la par exemple euh, ñu yore affaire euh, nettoiement ak yu mel noonu ministère bi Ablaye Seydou Sow yore woon. urbanisme am na fa euh, dëkkuwaay am na fa sax ak ñeneen ak ñeneen mais pourquoi na pas lii di ay bâtiment yoo xam ne état moo ko moom ay ministère nekk fa wala ay démembrement ministère nekk fa ay direction nekk fa te ñu mën a jël direction yooyu delloo leen building administratif wala ñu yóbbu leen ca sphère ministérielle bu Diamniadio parce que c'était ça l'objectif des sphères ministérielles bu Diamniadio pour permettre léegi nag batiment yi nga xamee ne moom la ñu am fii te ñu moom ko ñu identifie ne ñu ñoo ko moom maanaam état moo ko moom mais ñu mën ci def leneen loo xam ne mën na jural euh, état bi tuuti weccit aussi. Euh, euh, ba léegi bu ñu jógee foofu wala sax peut-être wax tuuti ci.